Euh, premier numéro de la semaine, vous c'est l'émission Le Rendez-vous de Sénégal 7. Euh, vous l'avez compris, c'est reparti pour euh, une heure de direct. On est le lundi 15 août. Tey nag comme ni ñu koy defee à chaque fois. dañ fi waxtaanee euh, l' actualité euh, chaude du moment chaque fois rek buñ fi naree amal ay jàngat par rapport ak ce qui se passe dans nos pays ou bien un peu partout ailleurs dañ fi dalal koo xam ne tout au long de l' émission daf ñuy accompagner si ay waxtaan ak it ay orientation yoo xam ne rek mën na tax ñenn si ñun am ay euh, voilà réponse par rapport ak seen ay questionnement tey jii nag j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un habitué des lieux il s'agit chargé euh, du frère euh, Abou Diallo bokk si mouvement bi ñu dippee euh, Revocap ak COS M23 c'est bien ça Abou Diallo salaamaaleykum auzu billahi mina sheytaani rajim salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ni nga ko waxee noonu la <laughs> yaakaar naa ni ci kër gi la bokk di am mbégte aussi di leen wuy uh-huh. di nuyu sénégalais yëpp ñi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel Sénégal set uh-huh. di nuyu borom kër gi aussi tamit di la nuyu et aussi di la jotali nuyoo sénégalais yi par mhm. rapport à votre professionnalisme parce que sénégalais boo dugalee image ne fii nga jëm si quatre-vingt-dix pour cent te di carrément que cette femme mu ngi liggéey liggéey bu rafet surtout que monde bi ñu toll nii nga xam ni euh, crise bi mu ngi ci biir média yi bu ci sénégalais am ñu ñuy bàyyi xel comme yooyu ñu ngi lay ñaanal euh, yàlla dimbali la ba nga yegg au sommet. allahumma amin <laughs> merci beaucoup abu ñu dooree euh, suñu waxtaan bi euh, sànq yaa ngi wax wàllum crise dañ koy doole ak malaise bi am foofule si euh, l'hôpital Dantec nga xam ne fu mu toll nii mun nañu wax ne gannaaw rek le président Macky Sall ba mu amee lee rek projet ngir defaraat bi lee hôpital fu mu toll nii dafa mel ni ñi ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee ñoom d'accordun ak anam bi nga xam ne noonu la ñu doxalee bi lee déguerpissement ñu ngi wax aussi wàllum euh, hectares yi on parle de trois hectares yoo xam ne rek dañ ko fas yéene jaay si euh, boobule hôpital mu ay polémique ak it ay interrogation nga am si ban jàngat. waaw euh, mbirum affaire l'hôpital Dantec bi damay reprendre rek un de mes amis parmi mes meilleurs amis que je rends un hommage c'est un médecin <laughs> dañuy waxtaan ma ne ko mu posé ko question ma ne ko li xew Dantec noo ko jàngate <laughs> mu ne ma tout le monde a raison comment ça. bi ma waxee loolu parce que man euh, bokkuma ci sénégalais yi nga xam ni parce que boo xoolee côté Revacom mbirum santé dañ cee yàgg. Euh, bu xew-xew amee Sénégal en général dañu nekk en otage de la manipulation. dañu nekk en otage des usurpateurs de fonction ak des arnaqueurs. Mhm. ak tamit benn presse boo xam ni en général day orienté boppam di liggéeyal ñenn ñoo xam ne ni en général fuy tàng ak fuy bax dañ koy jël pour gain bi retombé ci opposition bi pouvoir bi aussi tamit parfois bu wax jotee du yónni ñi war a wax ñu wax mhm. léegi nag bu ñu fekkee dañoo nekk ci monde boobu ba nga xam ne ni manipulation instrumentalisation escroquerie arnaque yooyu moo am da ngay dal léegi y a des journalistes spécialisés en santé yoo xam ne ni souvent dañ daan dem ci bërëb yi di fa waxtaan euh, ñoom Marie Rosalie ku mel ne ñoom Bintu Kan mhm. euh, man ñooñu laa doon xaar Alassane Cissé pour que ñu mhm. def mais bi mu amee bi ma njëkkee seetlu affaire bi ma mhm. laajee suma xarit euh, ma tout le monde a raison parce que médecin yi ne dañu nañu délocaliser Dantec professeurs yi ak médecin yi wax nañ dëgg te bañ ko waxee yàgg na donc askan wi tamit gisoon nañ hôpital Dantec su menace la nekk mu nekk hôpital bi gën a yàgg ci hôpital yi sur l'histoire c'était l'hôpital indigènes yi ñoo fa doon fajoo mm-hmm. tubaab yi di fajoo hôpital principal hôpital bi ni ko tubaab yi bàyyi woon noonu la continuer ñu dem ba benn moment projet de délocalisation dans Dantec ça ne date pas d'aujourd'hui bi président Ablaye Wade ñëwee bokkoon na ci programme am mm-hmm. mook lycée Lamine Gueye ñu mu indi ay polémiques yu bari ñu teg ko ci suuf mais après hôpital Dantec askan wi waxuñu nañ ko fa jëlee parce que askan wi dañu wóolu Dantec mm-hmm. moo dégg un ami euh, fou malade même si je suis pas d'accord souvent ak moom mu ne am na si ñoo xam ne ni wóolu dakaar ak wóolu côté Dantec wóolu moo leen jaral ñuy déplacé wu ba fi ñu jóge romb ay hôpital parce que Dantec la ñu wóolu. c'est vrai mais hôpital bi professeurs yi ñoo ree ñoo toog def conférence de presse daan ne hôpital bi mu ngi daanu ci seen kaw. interne yi ne liggéeyatuñu bloc bi fonctionné tul urgence bi fonctionné tul chirurgie infantile même chose léegi nag ñun ñëpp à l'unanimité ñu d'accord ni ni hôpital boobu dañ ko war a tëj. comme maternité bi ni ñu ko tëjee woon noonu ba di ko liggéey léegi bi ñu loolu amee l'État a lancé deux travaux loolu c'est c'est des questions financières ak montage financier mais bu coow li amee am entreprise bu dugg ci biir doon ut joxuñu ko ñu jox beneen entreprise mu yabalaat ay nit parce que dañoo am ay journalistes spécial am ay ay nit yoo xam te ne ay influenceurs yoo xam ne homme d'affaires bu ñàkk da leen di yónni ci biir. te nga bàyyi journaliste ah parce que ñoo san ñoo yàq réew mi. <laughs> nga il faut ñu oser wax ko ñaari corps yi ñoo yàq réew mi les hommes ak les journalistes. osons le dire moo am parce que tey sénégalais fu mu toog lu mu xam rek dañ ko koo xamal sénégalais ci ci ci télé wala ci rajo wala ci journal fa lay xoolee ak fi nga xam ne léegi kenn moomu ko sabar su tas la muy réseaux sociaux waaye ñu ngi ñëw di leen di wax si on n'a par la bonne information su dee ki lay informé daf lay manipuler loolu day andi problème gis nga bi xeex bi coow li amee sénégalais fan lañ jëm mooy bi patient en danger coow loolu jógee. Mhm. xam nga dama jóg ne leen tey xam nga j'ai mbirum asu soxna am na ñu ko bëggoon utiliser pour foowee ko ci ut ci ay partenariat ak wane ci ay animation bi mu amee anamu gisati nga leen mais xam nga lan mooy problème bi euh, Abou gis euh, nañ en 2014 une partie euh, du personnel remettre woon président de la République Macky Sall par rapport à ce projet bi nga xam ne voilà ñëpp xam ne ne carrément l'hôpital Dantec dañ ko war a defaraat mais amoon na neneen noo xam ne bi ñu ko defaroon maladie di neen resté ñi nga xam ne mooy ces infirmiers ou bien ces docteurs du ñu perdre seen liggéey parce que il faut noter aussi 10 pour cent rek médecins yi nga xam ne ñoo nekk si hôpital bi moo ñoo nekk si biir euh, fonction publique donc ñi nga xam ne hôpital bi ñoo leen doon fay léegi qu'est-ce qu'ils vont devenir c'est là où se trouve le problème moo tax ma ne la moo tax sànq ma ne la foofu la coow li ne mhm. une partie du personnel manipule l'opinion suñu waxantee dëgg à juste raison Abou aussi ma ne il manipule l'opinion moi je ne parle même pas de manipulation xam nga rapport de force moo am foofu xam nga ku am contrat légal mais ñaata yoon la ñuy attaqué l' état du Sénégal au niveau des tribunaux professeurs yi xam nañ fi ñu jëm met met ñiy jàng foofu chercheurs yi ak ñiy def interne xam nañu fi ñu jëm parce que xamul lu tax ñooñu ñu ngi ci yoon wu baax bi leneen li ñu doon wax di ko kaas chaque jour ne la moo am ci état bi moo am ci institution yi opposition bi yore moo am ci aussi tamit yeneen yi nga xam yeneen kuréel yi nga xam ne ne état du fa dugg du ko inspecté mooy recrutement clientéliste. directeur général bu yegg si dafay recruter di personnel boo xam ni non qualifié ñiy wax di gis nga ci médecin bu taxaw wax gis nga ci euh, benn benn professeur bu taxaw wax agrégé par contre suñu médecine ak suñu sante dañu am problème communication parce que loolu professeur Abdou Kane wax na ko ni ñu tabaxee suñu santé bi ñu ko tax après première guerre bi ni ñu tabaxee santé ñoom culture ak communication bokk ci. mais médecins yooyu ngay wax ak professeurs yi par rapport ak système hospitalier fii nu muy doxee Sénégal wala sax ñi nga xam ne ñoo nekk en rapport direct avec les malades ils sont minoritaires. loolu xam ne ko Sénégal on les voit même pas ñooñu nga xam ne mën nañu wax ne euh, peut-être c'est des infirmières des aides-soignants ak ñi nga xam ne des c'est des brancardiers ñoom ñooy def euh, carrément li nga xam ne mooy le gros du travail aussi dans nos hôpitaux. par contre li ngay wax nii xam nga yàgg naa taxaw di leen kaasal ne leen les paria ne leen dafa am ñu yàgg ci hôpital bi defa ay trente ans ñi defa ay quinze ans ne leen balaa recrutement di jóge fenn. ñu leen di indil nañu xool ci biir hôpital bi ñi nga xam ne ay ay volontaires lañu woon. wala ay vacataire la ñu woon mais mbir moomu moo pëccëxoo dama ne directeur général ñoom ku si nekk na wax lan la fa duggee pourquoi il ne nous explique pas ni ñu leen recruter xam nga dama ne la médecin ak professeur agrégé bu amee jot nekk ci rajo bi di wax kon ñu dee qu'importe mais gis neen carrément aussi euh, fekkoon amalul na njëriñ hôpital pourquoi aussi les déedéet euh, hôpital bi yàgg na crier que ni personnel bi ñu leen di jox ñu attanuñu ko parce que hôpital bi du médecin yi ñooy demandé nga gis hôpital bu am personnel bu bari boo demee centre de santé yi nekk yi maire yi yor ak yi nekk dominis personnel bi moo ëpp te dañuy soxla ay personnel qualifié. c'est vrai que les hôpitaux sont les euh, plus grands recruteurs. waaw léegi ñan ñooy recruter comment ville yi ñooy recruter conseil départemental yi seen i quota ñooy conseil d'administration bi ña fa nekk ñoo leen koy envoyé directeur si moom mooy ñëw jël ku mu neex. boo yegsee boo ñëwee bu dee ñooñu jot nga leen defal seede yi balaa ngay dem ñeneen ñi ñëwaat te am ñii lan la ñu wax dañ ne suñ ñu génnee fii suñu ñibbisi waatee duñ ñu jëlaat waaw kooku dafa nekkoon ci contrat bu légal yow fii dinañ la fi génnee noonu yow mi am seede yi bu normal dinañ la fi génnee nii léegi lan mooy wax ji mooy ki nekk ci yoon ñi nga xam ni dañ leen tooñ bu dee nii nii ñoom dañ leen jël état hôpital mooy seen employeur dans la légalité mu jël leen ñu nekk ci contrat bu normal mai kooku buñ la nee demal toog ba ñu ibbi hôpital bi mais dañ lay fay. Mm-hmm. waaw ñi nga xam ne dañoo nekk sur la base des contrats xam nga wax ji moo doon lan la mooy les spécialistes yii bu amee ñii dañu war a dem def investigation. mais su suñuy journaliste Sénégal populisme bi ñu nekk. ak ci recherche de buzz bi ñu nekk. Euh, ak ci utilisation non parce que j'ai vu des journalistes yu taxaw. xam nga dafa dem benn mbirum santé dafa nekk loo xam ne kenn war koo fowe gis nga tey affaire Dantec muy déplacer ay malades ñëpp la incombé c'est une chose humanitaire waaw la Croix-Rouge sénégalaise est mais les maladies les malades ne sont n'étaient pas préparés à oh, moom laa dama ne la xam nga la responsabilité xam nga xam nga ah. coow li bi mu jógee lan moo jur coow li mooy yéen ñi ngeen gis ñuy wax ñaar débat moo ci am mooy ñi ne gayen bi ñu jox affaire waruñu ko woon jox marché bi espagnol bi kii mais coow boobu mu ëpp doole ci biir coow li beneen coow bi mooy ay groupe syndicaliste ñu ne suñu liggéey ëllëg fan la jëm mm-hmm. waaye ñaar ñooñu ñoo téye ñun ñi en otage mm-hmm. baisse d'ordre d'affaires beneen bi c'est des personnels clientélisme nangam nangam ma képp ku nekk ci yoon da ngay dem ci état du Sénégal leneen li ci des nag mooy la responsabilité de l'État moo tax ma ne la tout le monde a raison parce que état bu fekkoonte ne ni organiser na hôpital yi régulier na hôpital yi topp na réforme sanitaire yi ba nga xam ne ni hôpital du n'importe comment la ñuy recruter bu fekkee hôpital day recruter ñoom ci seen biir ñoo war a xool li ñu soxla personnel bi ñu soxla su doon état deful loolu du yegsi fii parce que Sénégal dañu tàmm loo xam ne ni jaarul yoon ñu yoonal ko moo leen indi responsabilité bi beneen bi stop mooy le président de la république en tant que président de la république dañuy wax ordre national santé mhm. ñoo ko war a conseiller mais l'ordre national a a échoué ordre da ngay gis ki diise ordre bi ba pare jël service bokk ci biir ministère de la santé cumul de fonction on peut pas être juge et partie dafa am organe bu tudd ordre national des médecins ñoom ñooy conseiller le président de la république le président du ordre national ci texte yi ak ci constitution bi ñoom ñooy conseiller le président de la république décision yi mu war a jël ci santé ki jiite ordre bi chef de service la biir ministère de la santé ci diggante bi crise am na Ablaye Diouf Sarr jóge fi dem bi Ablaye Diouf Sarr di jóge fi am lan moo ci fi jëlee Ablaye Diouf Sarr problème gestion hospitalière yi problème gestion ki fi ñëw ministre la mais intérim la fi nekkee mhm. donc bi mu toogee waa ordre ñi nga xam ne ñoo waroon jóg wax lii conseillé wuñu président ils n'ont pas donné la bonne information donc c'est au président de la république man waxuma ci manipulation bi am fële ak rapport de force bi am fee mais le président de la république moo war a teg déménagement bi ci suuf parce que déménagement dañ koy organiser mais mënoo jël faute bi nga incombé ko le président parce que ordre national bu dee ñoom dañoo taxaw noppi parce que bu fekkee ordre bi kon nañu tas ordre bi y a lieu bi parce que bu dee le président de la république ordre moo la war a jox conseil ne la fii ak fii ngay dem conseil sécurité militaire wala conseil national ak leen bu fekkente ne en matière de sécurité du ñu woote conseil national de sécurité ñoom ñooy wax président de la république lii ngay jël décision bii ngay jël mais ordre national des médecins su fekkente ne ni concernant la médecine concernant lu jëm ci hôpital nga xam ne faj daf ci am am am solo donc ñoom bu fekkee heure bi ñoom ñoo échec ñoom ñoo échoué beneen bi stop mooy santé dafa am problème communication bokkul système gis nga bi affaire euh, aji soxna amee asu soxna. dama ne leen désormais il faut que ngeen ut ñu leen communiquer am na ñoo xam ne ni ñu ngi ci seen biir mën communication jàng leen communication ak culture ngeen xool boole waale ko ci si biir mbir yi léegi ak nan ngeen di waxee ñi ñi ak nan ngeen di préparer nit ñi beneen bi si mhm. mooy ceux qui quittent les régions en région pour venir ici ñëw di def si euh, soins nga xam ni ñoom hôpital Dantec la ñu wóolu la question qu'on doit mooy ñaata hôpital ñoo nekk ci yoon bi ñu jógee yëpp ba yegg si fii. mais aussi xam euh, nañ aussi dans les régions comment ça se passe. aussi avec les hôpitaux moo tax nag le débat doit être posé. xam nga tey bu ñu nee dañuy def déménagement professeurs yi bari wuñu mhm. parce que sénégalais jàngatuñu. scientifique yow xam nga ci dara boo soxla ophtalmologie ñaata ak ñaata weer nga koy am. mais lii waroon am tey état bi ban décision la waroon jël. mooy mu mais faut aussi euh, Abou Diallo noter au Sénégal la recherche et la spécialisation coûtent énormément cher. au xam nga non dama wane la si la la recherche coûte Euh, si mieux mais xam nga ñaata ñoo dem bac ren six cent sur cent cinquante mille matière scientifique yi boo demee spécialisation ñen ñoo fa ëpp étranger yi mm. s'ils sont mille cinq cent mille sont des étrangers benn mooy respecté wuñu gars yi nga ñooy def spécialisation mm-hmm. parce que di nga jàng huit ans presque ba di ba ba sa neuvième année doo am salaire doo am lu baax doo am statut c'est vrai donc nga yor ay parent dem ba nekk 15 ans ci benn milieu. Mhm. yor ay parents yor famille continuer bëgg a def spécialisation. Ah. beneen bi si topp mooy amuñu yenn matériels yu vétustes yi yi nga xam ne ni buñ la yóbbee ci àll bi nga nekk spécialiste dangay ngay réer doo mën a jàngaat. Mhm. mais gis nañu Sénégal nag des progrès tabax nañu ay hôpital yu bees. loo xam ne ni hôpital appareil yi fi tubaab yi bàyyi woon bi bi Abdoulaye Wade ñëwee yokk ci dalal jàmm bi président Macky Sall ñëwee def na infrastructure hospitalière mm. waaw ces infrastructures hospitalières nan la mën a nekkee mais qui peine moo tax nag ma ne <laughs> du du du l'échec du président de la ou l'ordre national des médecins parce que bu fekkee ne dañu war a jël une question boo xam concernant la santé benn décision ñoom ñoo ko war ne en attendant que ñuy ñuy euh, délocaliser Dantec nañu équiper les nouveaux ay matériel ba pare nañu affecté des médecins ci nouveaux hôpitaux yi lu mel ni Pikine lu mel ni euh, Dalal Jàmm nga xam ne ni moom moo centralisé départ département Pikine bi yëpp ak Géejawaay lu mel ni hôpitalu Pikine mais service yi fa amul da ngay defar service yu bees man je ne suis pas d'accord sax qu'on déplace les service parce que urologie amul woon euh, hôpital Ngor Almadi urologie wu Dantec mooy ñëw foofu de la délocalisation Dantec bi c'est un mal nécessaire parce que on est en des services ci hôpitaux yi nga xam ne ni amul woon yooyu service donc pour pour loolu ëllëg ñooyu service gëw ma ni dinañ génnatiwaat foofu di dem feneen. Mhm. léegi nag état nan la waroon organiser lii SAMU national c' est une organisation boo xam ne ni ñoom professeur Diarra Bèye sénégalais yi comprendre duñu wala parfois du ñu bàyyi xel ci yenn yi ñëw moo tax ñoom du ñu mën a crasse kenn du leen kaasa SAMU national moo sauvé nit ñi presque ci Covid bi. SAMU national sax moo nekk di organiser évacuation yi pourtant sénégalais yi ñoo ko créé boo demee Côte d'Ivoire seen budget ça des milliards. fii Sénégal sami national seen budget boo jëloon budget bi nga def ko 10 milliards. mais c'était aussi euh, concurrencer aussi docteur Niang aussi. non non non dañuy jaawale ah. sami national Sénégal moo ko moom. je sais. docteur privé la. qui fait aussi un excellent boulot. aussi euh, xam ne waaw moom laa dama ne la. privé la certes certes mais il fait beaucoup dans le social aussi. waaw mais xam nga dama mhm. ko ci déménagement bi. mais sami national ñun ñoo ko moom. dans le fi ñu toll ci un standard. santé internationale nit buy voyager lu muy njëkk xool ndax sa dëkk am na sami mhm. tey jii fi Sénégal toll nii lan moo waroon doole mooy SAMU national la ñuy renforcer dans chaque département mu am benn SAMU bu am doole sous arrondissement bu nekk mu am SAMU bu am doole am évacuation yi gis nga SAMU national boobu bu fekkonte ne am na doole tey dinañ organiser déménagement bi beneen bi si lu toll ni Croix-Rouge du Sénégal récemment lañ leen yoon may cent million mais Croix-Rouge moo am 68000 volontaires ñoo xam ne ni ñoom dañoo signé volontariat am na ci ñoom infirmier am na ci ñoom aide-soignant mais da ngay gis ñu nekk ñoom ci hôpitaux yi kenn du leen recruter clientèle politique la ñuy indi foofu ak ay quota quota syndical gis nga ñaari organisation yooyu tey muy sa muy Croix-Rouge muy sami national léegi nag li nga ma wax léegi léegi ku mel ni professeur euh, docteur Niang léegi état du Sénégal mën na réquisitionner ku mel ni docteur Niang réquisitionner clinique yu bari fii ci Dakar bu leen réquisitionner avec l'organisation de SAMU national dinañu jël malade yi processus boobu nga xam ne dinañ déplacer malade yi nga xam ne dañu nekkoon ci benn euh, traite sous traitement yóbbu leen ci hôpitaux yi bu laal yëpp feesee hôpitaux ñu réquisitionné yenn cliniques yi clinique yu mel ni ni moom docteur ñaa nga xam ne day ibbi clinique am souvent bu yooyu amee yóbbu fa ay malade léegi benn durée deux mois en naa que ñu installer service yi en attendant que hôpitaux yi ñu leen déplacé wu fonctionnel xam nga loolu bu amee coow du am mais mënoo toog yow président de la république nga toog conseil des ministres ñu dem séema dem daje au niveau du ministère de la santé ñu décrété ni 15 le président ñëw ne à partir du 15 le déménage président du médecin. Mm, en tout président du médecin. Oh, euh, surtout cette ma xam nga am nga ñaari chose mooy am mooy c'est-à-dire malade yi dañuy am problème information. Mm. parce que fii Sénégal ñaati ñaari chose moo fi am mooy am na malaat boo xam ni day dem ba mu jeex stade final muy doog a ñëw hôpital. fii am na lenn loo xam ne ni aussi am na aussi tamit ci suñu côté santé mooy suñu suñu tribune yi nga xam ne dañuy def commune na la santé amul communication loolu dañ ko war a corriger suñu système sanitaire mooy santé dafa war a di communiquer SNEPS bii ñu jël jox ko ay politique loolu du seen mission mhm. dans les normes gis nga hôpital pour nga nekk professeur agrégé dafa am hiérarchie booy jaar pour ñu nommer la professeur agrégé président dañ koy jox këyit bi rek mu nommer mais président du tànn foofu mais tey nga li daloon professeur Moussa Seydi mhm. politique mooy ñëw bloqué la pour professeur Moussa Seydi ñaata yoon la yor projet boobu mu taxaw. bi projet bi taxee ba léegi amagul personnel bu doy ci biir centre maladie infectieuse bi. waaw léegi loolu bu yegsee ku mel ni professeur Daouda Ndiaye am na ay ay programme yu mel ni action ba pare créé ay clinique créé yu bari gis nga ñooñu boo leen associé wul ci mbirum santé bi. xam nga tey boo leen woon ci mbirum sante bi dinañ organiser ak les volontaires organiser déménagement bi mais pour man. la responsabilité c'est l'ordre national bi nga xam ne ni leur mission c'est de conseiller le chef d'état mais l'ordre bu dee ni biir ordre biir médecin daf ci am ñoom dañuy bokk ci biir kuréel yi xelal ba pare jël ay responsabilités au niveau étatique et au niveau du ministère de la santé nga xam ne dañuy nekk juge et partie li ñuy tere politiciens yi foofu ñoom dañ koy def foofu deuxièmement le président de la république bu lii amee coow am même bu dee a de la manipulation de l'opinion même bu dee rapport de force ak personnel clientéliste bi bu taxaw nga arrêté ko donc on demande au président de la République de surseoir ce projet de déménagement bi nit ñi déplacer malade ñu arrêté entre temps ñu réorganiser waat le système d'aménagement associé ci Croix-Rouge associé ci les privés. Euh, moo nekk euh, dernière date bi de. moo tax nag xam nga dernière date bi. dernière uh-huh. date bi ñëw nii. Uh-huh. léegi nag ñaari chose mooy bu mbirum santé ñëwee nag que les hommes politiques yi ma gis ñu dugg foofu activistes yi ma gis ñu dugg foofu su dee dañuy conseiller au personnel lan lañ leen war a conseiller légalement recruté. su dee am ngeen këyit yu baax ngeen dem ci yoon. mais on a vu aussi euh, Sagna. Ah non mais xam élu euh, aussi député il est nga Guy Sagna avant ñu koy élire député moom bañ ko nee liggéey liggéeyiwul bu ko ministère de la santé yóbbee dañ ko doon fay muy taxawaalu. même recrutement am boobu noonu ban fas nan lañ ko recruter est-ce que jaarul ci côté AG bi mu fay bokk. attention Guy Sagna nit ñi dañu defee ne lu bees la yàgg na fi bi muy nekk AG PADS avant muy dem yoonu askan wi recrutement am foofu fan la jaar. mais mais Guy Marius Sagna. mais Guy Marius Sagna ENDS la jaar aussi. waaw dama ne ku génn ENDS xam nga ñaari chose moo mën nga génn ENDS nekk assistante sociale. voilà mais du ENDS. xam nga laa nag ne la bu doon dans l'ordre normal des choses ENDS dañuy wax nii ñi génn de un à kii les meilleurs fii la ñu jëm les kii fii la ñu jëm bu dee EBAD la ñu ne ñi génn fii lañ leen di affecté mais amul Sénégal xam lan moo am Sénégal clientélisme. moo am ci pouvoir moo am ci maire yi opposition yi yor moo yor ci institution yi gars yi yor dama ne Guy Marius Sagna moom ci boppam affecté nañ ko liggéeyewul ku dul liggéey du di koy liggéey xam nga tey loolu mooy le débat Guy Marius Sagna Tamba bañ ko yónni dane dafa tàng demul fa fii la toog ñu koy ketal di ko dajaleel donc bu xew-xew amee nga déplacé wu ñëw gis nga nit ñi dans la légalité l'opinion ak manipulation de l'opinion la ñu war a bàyyi moom mi ñu ne demal liggéey Tamba mu bañ. bañul de. non déggoo moom mi ñu affecté ne ko demal mu bañ. bañul de déggoo la moom mi doon fayee ko continuer liggéeyul. xam nga kii Mari Sagna bi mu njëkkee am problème Dakar si ñun la ñëw animateur yooyu ñun ñoo ànd ak moom tëj ko fekk ko Tamba. xam nañu bu baax li ñuy wax. mais le problème en nag Sénégal moo toll nag foo xam ni les gens utilisent souvent des occasions tey y' a combien de travailleurs hôpital Dantec dañ ne la dañ doon dugal subvention. mais li ñuy fay nit ñi ci masse salariale bi attanu ko. mais aussi il faut reconnaître il était dans son rôle de de bien vrai que. avant muy nekk député ça il a toujours été du côté du peuple aussi euh, Abou Diallo. waaw non xam nga ñaari chose mooy Guy Marius Sagna un politicien qui utilisait l' espace de la société civile. Ah. pour manipuler moom noonu la def dàmbooj noonu la def noonu la ñëpp def gis nga loolu leer na léegi ci bëtu nit ñi. xoolal ci fekkee dañuy waxante dëgg rek élection législative kan nga gis rek ñu demul ci benn campagne wala ñu def ju moi je suis resté 21 jours sans génn génn ma 21 jours pour toog wax ak askan wi. Mm-hmm. pourtant loolu simulé nañ ko. que dematul ci télé yi dañ ko interdit ci télé yi parce que bëgguma woon wax dara lu jëm ci concernant élection yi tant que les urnes waxuñu. Mm-hmm. parce que ci diggante bi ñan ñoo génnoon ñoom Dambo génnuñu woon ñoom Karim génnuñu woon ñeneen